Jaariyatu Diallo. yow euh, étudiante nga woon ba am say lijaasa. am naa licence. licence lan nga droit. droit waaw waaw droit boo jàngee université Cheikh Anta Diop. université Cheikh Anta foofu laa jàngee. waaw mu ñëwee ci yow nii. 2016 de la ma dal ma jékki-jékki rek maa ngi woon université. Hmm. di wàcc di yukkeel. xaw ma lu ma dal. léegi nag ma ñibbisi suñu kër 2016 boobu ba léegi may entré hôpital lu nekk ma entré fa. mënuma tane yóbbu ma ci fajum olof lu nekk ñu def boobu léegi. ma fexe ba wér ci mille 2017 bi daal décembre bi ma jékki-jékki sama tànk yi bañ muy indil def la paralysie waaw ah, mu def ma paralysie bët bi tamit ma jékki-jékki bët yi lëndëm flou daal muuru ma ah, muuruwul complètement yaa ngi gis nii waa garab yi may jox moo tax maa ngi maa ngi commencé gis mm-hmm. tuuti tuuti mm-hmm. da nga defoon euh, concours jàlloon EFI waaw jàlloon naa ko kay dama ko def entretien fekk ma hôpital. ah da ko def admise ñu nga war a def entretien. waaw mu affaire yi daan la waaw fekk maa ngi hôpital ja mujj ma def entretien bi. Mm-hmm. ku ma jàppale pour ma mën a faju faj bu gën ci man daal loolu laa soxla interpellé kii président Macky Sall ak Marième Faye Sall ñu ñu jàppale moom faj faj bu gën ci man daal laa soxla. nga inscrire woon master 1 aussi waroon def master 1. waaw master 1 laa waroon def. droit privé. science criminelle science criminelle waaw moom laa bëggoon def. mujjoon nañ ma sélectionné master en droit waaw yi daaneel ma mais après nag ma demee fan nag ci lañ ñoom ci lañ trouvé maladie bi te maladie bi neuromélie optique la tudd. tantam la c'est une brave fii muy xale di étudiante di yaakaaru yaayam ak papa bu demee ba lii dal ko dafa metti ci xol donc lu mu wax rek laa wax ñu ngi sant sunu borom mais ñoo ngi interpellé Ndoye Bane mu jàpp ci interpellé Marème sàll première dame di interpellé Boubs Mohamed Ndiaye bépp bonne volonté bu ko mën a jàppale rek ndax kii xale la mi ngi nii gisatul doxatul ñu ngi interpellé Macky Sall président de la république ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm Cheikh Anta lu waay mën rek na ko ci def ci barke Sëñ Touba Mbacké